initiative nag lu ko tax a jóg mooy jox xar kanam bu bees ci seeni quartier ba tax na ñu peinture buntu kër yi yëpp daanaka benn couleur. dañoo toog gis yeneen koñ yu ko def fii ci biir quartier bi donc ñu toog fekk suñu frères yi fi ñuy naanee ataaya ma déplacé ñëw ne leen kaay la ñu xool suñu koñ nuñ koy defaree comme yeneen koñ yi yàlla def na nag ñu déggoo mànkoo fi amul ku mag ak ku ndaw bi ma waxee ñu ne ma grand loolu mën na nekk. ñu xëy suba lande ma dugg ci kër yi tàggu suñu papa ak suñu yaay ñëpp ne waaw projet bi nag ñoom ñoo ko financer seen bopp benn loxo autorité wala politicien dugg si gannaaw lekket bu ñu jël taxaw ci tali bi lu waaye am sandi projet bi kenn kenn kenn kenn financé wu ko projet bi financement bi cëpp mooy leget gi ma doon yor taxaw ci kaw télé bi leget googu daanaka suñu amoon tey luñ koy récompenser dañ ko koy defal moom su doon nit la dañ koy wutal fii luñ ko sargale ñëpp seetaan ko ñu fiy jaar di ñu may seen i dix mille seeni i trente mille seeni i vingt mille ndax seen xol sedd. ci turu quartier bi yëpp notable bi moo ngi rafetlu li ni mel teg ci di ñaanal ñoom ñi tax bi la projet taxaw te mu doon lu law ba faw appréciation bu positive waaw parce que xale yi jàmbaar lañu jàmbaar lañu bon non seulement dugal na ci seen doole mais seen temps yëpp jël nañ ko je crois que lii ñu ngi ko démarré woon vers le vingt sept vers le sept vingt sept mai ah vingt sept mai. alors le 27 mai ba léegi ñu réalisé lu mel nii te affaire bi booy seet dafa continuer ba école citadelle avec d'autres jeunes qui sont là-bas de boo xam ne bi te état fekku leen ci maire fekku leen ñoom ñi nekk rue nañu rek lu leen tax a jóg mooy gën a ñoŋal seen dëkkuwaay ba tax na nawet bi jub si sax ñu def ay opération pré hivernale tamit dinañu installé ay caméras de surveillance ngir xeex insécurité ci biir quartier bi